joxe nañ directive bi bu jiyee àddina nanu taxaw mooy sëñ mu taxaw yàlla yàlla gërëm wax naa la léegi fi ndek maa ngi bëgg di wax ma rek waaye sa programme bi dama ko def fii ndax tur bi fi ñëwee ak grade bi fi ñëwee te ndaw day am ma dara day ko yóbbu moo tax ñu ma ko ci yow sëñ bi waaw waaw Seydina Muhammad tijaar yeneen yoo xam ne kenn mënu koo lim. daje woon fonk kilifteef tàggoot ko ci euh, jëflante bu rafet loolu yaakaar naa ne bu ma ko ci moom dafa fekk ne mooy suñu groupe ci kër gi waaye njaboot gi yëpp ña ma ca xamoon ña ma ca xamoon am naa yaakaar bu rëy ne wala sax ma am ci yaqin ne loolee moo nekk si ñoom kon li ñuy def mooy dañ leen ñaanal ci turu sëriñ bi suñu borom taxaw njabootu euh, alxaaji Amadou Gaye sàmm leen te euh, làq leen ñu ngi koy waxee fu yàq naa ne sax loolu moom mucc ngeen ci ci dogalam suñu borom alhamdulilah euh, ndaxte ku ñëw fii gis ñu fi taxawal bis bu mel nii da nga xam ne kat ki waral ñu fiy def bis bu mel nii bàyyi woon ginnaawam te yaakaar naa ne nit bu dee dund ci kaw suuf war naa bàyyi xel la jàll mu caa jàngee ba du euh, def ay njuumte waaye war naa mën a fexal euh, fexee rafetal defar bu baax fa mu toll ci jamono li ci ay jëflante la man ci lu baax lépp mu koy def waaye tamit war naa bàyyi xel tamit ginnaawam yaakaar naa ne ku jàngat dundu alxaaji Ahmadu yaakaar naa ne loolee danga ko ci fekk ndaxte taxawal euh, lu mel nii nekk ci dëkk bii muy daara bi mel nii waaye amut njaboot yar leen ci diine bañ mën a wéyal loolu yaakaar ku koy def euh, xam nga ni nit war a euh, fexe ba defar ak dundam ba mu amal ko jariñ gi jeexee yaakaar naa ne lii lu koy amal jariñ la dafa nekk ndaxte eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit bu fekkee ne dafee bàyyeekoo woon ginnaaw àdduna eh, am na ñett yoo xam ne bu ko bàyyee ginnaaw day mel ne bàyyiwul dara lu gën loolu. Mhm. day mel ne tamit ay jëfam na mu ko doon defee te ba muy dund mi ngi continuer di ko defee loolu. yaakaar naa ne yooyee bokkoon na ca lu mel ne daaray alquran wala lépp lu baax waaye bokkoon na ca tamit amuk njaboot yar leen yarub lislaam yarub lislaam ñu nekk ñu jub ñu tege ci yoon di la fàttaliku mhm. di la ñaanal waaye di woo seeni xarit seeni wëllëre seeni dëkkandoo ak seeni mbokk ñu leen jàppale si ñaan boobu yaakaar naa ne bis bii loolu lay firndeel bu rek dajoo wax euh, daal di dem waaye li ci ëpp solo li tax mu gën a am solo mooy ñoom njaboot ji moo xam njabootu deret bi nga xam ne moom la fi waaye njaboot gi nga xam ne njabootu roox la xam ne euh, euh, l'islam moo leen boole woon euh, moo xam ñu nekkoon ci ay daaram la wala ñoo xam ne daf leen a dimbalee ci seenu njàng wala ñoo xam ne dafa rafetal xam ne saa su jàllee borom bi ñu ciy fàttali ko borom bi si biir dana euh, yàkkamti mu naa ne kon kenn ku nekk euh, war na cee bàyyi xel euh, Serigne Mountakha nag bu ñu yónnee fii ñu ñëw fi ak jóge Touba nga xam ne mooy rek suñu yittee yaakaar naa ne loolee ku xamul Cheikh Mouhamadou Mountakha ci jaxasoo ak moom tamit. war nga see mën a jànge lu baree bari war nga see mën a jànge ne moo kat lañu suñu borom digaloon ci alquran euh, digal ñu ne kat ay jullit ngeen waaye euh, bu ngeen bokkut fu ngeen jógee bokku leen mbokku dara li leen boole moo ëpp mooy al iman euh, mu wax ne innamal mu'minuna ixwa kon yaakaar naa ne al uxuwa al islamiya euh, bu ci nit ñi bàyyee xel fonk ko gën ko jox gëdda mën na dem ba ñun ñu gën a bëggante sax ci ñoo xam ne dañoo bokk ndey baay te nekkuñ ci lislaam bu ñu fokkee bu fonkee suñu am bokkoo ci lislaam mën nañ dem ba bëggantee noo xam ne day raw ñoo xam ne dañoo bokk ci dara bokk ndey ak baay waaye bokkuñ ci kon loolee Sëriñ Muntaxa loolee rek ci lay dox ngir dundal ak uxuwaat lislaam ñu mbokkoog lislaam gi war am mbokkoog lislaam boobu nag li koy dëgëral li tax bu rafet mooy dañuy bañ a tëjoonte ndaxte nit bu la xamal dara rek mën na laa amee njortu mën naa njortu ci yow loolu suñu borom sax digal nañu loolu ca saar boobu waxee ñu fonk al uxuwaan islaamiya ga ca saar woowee la waxaat ne dee leen moytu yenn njort yi ñaaw ci nit ki ndaxte loolu bàkkaar la te lu ngeen xamul ci nit ki tamit euh, bu leen ko jéem a lu ngeen xamul ci nit ki bu leen ko jéem a mooy tajassus wala tajassasu waaye tamit lu ngeen xam ci nit ki mu di ab safaan lu ngeen ko man ci suturaal ko am ngeen suturaal ko saa bi suñu borom di waxee amakumal islamiya te ba ma wax waxul innamal muslimuuna dafa wax innamal muminuuna ixwa ca saar woowee la waxaat ne kat bàyyi leen xel ci ne euh, al iman moo gën a euh, al islam ndaxte qaalat al arabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna euh, suñu borom foofu la wax naa ba am ñu dikk ne ko arab yi kat euh, ba am waxee ne euh, euh, arab yi kat dugg nañ gëm nañ suñu borom bu leen la mel nañ ni lu dugg lislaam bay def li waa lislaam di def waaye nag amuñu iman comme kon nit war naa bàyyi xel si ne bu bëggee ak imaanam wér ndaxte iman moo moo supérieur moo kawee Euh, muslim maanaam mu'min moo kawe muslim kon innamal mu'minuuna ixwa li ñu ciy dégg mooy ne pour nga mën a am iman bu wér da ngay am al uxuwa al islamiyya mooy koo bëgg nga koo gis rek muy ab jullit nga jàppe ko ne sa morom loolee nag li koy wane mooy demlante ak dikklante ak jëflante jëflante bu rafet ak yéenante jàmm yaakaar naa ne moo tax Cheikhul Khadim bari ak mu wax ne euh, euh, ñi nga xam ne ñooy samay euh, soppe xam ne dama leen bëgg ci sama xol euh, ngir yàlla ñooñee ñu mu ci jiital mooy al mu'minuun moom sa sëriñ Tuubaa wax na ko lu bari ci ay bindam kon loolee lu mat a bàyyi waaye tamit ci saar woowee ma wax noonee euh, lii tax ak kilifa baax ak fonk ko ci saar woowee muy suuratul Hujuuraat su ma ko tuddee ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu euh, euh, xam ne ñoo nañu war a fonk kilifa ak nañu war a yaakaar naa ne ca saar woowu borom di jàngale soxaaba yi nan lañ war a ànd ak seen kilifa ndaxte nit mënta ñàkk kilifa bu kilifa amul fonk war mooy am anarchie totale te loolu baaxul kon nit war naa am kilifa ci saar woowu la borom jàngalee waaye tamit ca saar woowee la suñ borom waxee si bu ay nit euh, jàppantee ñu bokk ci njabootu lislaam nan lañ war a mën a fexe ba ñu àndaat amee al uxuwa al islaamiyya euh, loolee tamit ca saar woowee la ko suñ borom di jàngale kon loola lu mat a bàyyi xel la ndaxte jëm nañu si jamono joo xam ne yaakaar naa ne day mel ne jamonoy xëccoo la Mhm. Euh, jamono xëccoo nag bu dikkee ay kàddu mën naa jóg ay dënn mën naa tàng ñun nag ñu ngi des di ko am muy kilifa yoo xam ne bu ñu nee def leen ñu def bu ñu nee bàyyi leen ñu bàyyi loolu sa euh, euh, euh, saa soo xamee ne rek réew mi mi ngi koy am mën nañoo am yaakaar si ne danañ dund ci jàmm ju ëpp sax jañ wees woon danañ dund tamit ci xéewal yoo xam ne dafay ëpp waaw la ñu wees woon te loolu yaakaar naa am na ay indicateur yi koy wane kon euh, man nañ euh, euh, ñaan ñun ñëpp ci li nga xam ne moom lañ jëm ñu ñaan si suñu borom def si jàmm def si ñu weesu ko weesu ñu mu gën a rafet waaye nag tamit ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital damay wax ci ñëpp ñi yàlla mas a jiital ñëpp bu yàlla jiital rek war ngaa bàyyi xel si ne responsabilité ba nga xam ne moo taxoon suñu borom subhanahu wa taala di tànn ay nit ñoo xam ne euh, moom moo leen tànnal boppam indi leen ci doomu aadama nga xam ne leen kii kat maa ko tànn ci yéen def ko mu gën leen nga xam ne kenn mënu ci dara nga bañ ko ak nga nangu ko lépp suñu borom moo ko tànnal boppam def ko mu gën ñu mu yónni ko ci ñun ngir mu war ñu yoonu njub as-siraatal mustaqim ñooñee noonee ku ci mas ñëw juróom euh, yi ëpp solo ci nit nga xam ne saasu euh, lépp jaaree ci yoon rek àdduna lépp jaar ci yoon muy euh, sàmm doomu aadama yi ba bakkan kenn bu ko jël wala àqi doomu aadama ci ëpp ko doole wala nga man ko wala ci yeneen yu man doon yonente yi fi mas a jaar yëpp bokk na ci li fi indi mooy sàmm nit ñi ba kenn ku ne am say xàq waaye tamit sàmm derut nit ñi maanaam ba nga xam ne kenn du sañ a teg ci derut nit loo xam ne waroo ko caa teg ci tuuma wala sos wala lu mu mën a doon loolee tamit yaakaar naa ne ku yàlla jiital ci réew wala fu mu mën a doon war ngaa bàyyi ci na loolu responsabilité la boo xam ne suñu borom teg na ko ci sama boos waaye tamit euh, sàmm askan bi askan bi si seen jëmmu bopp nga sàmm leen ba nga xam ne comme ni ma ko waxee woon ku tooñ ñu delloo ko ay xàqam euh, ak yu bëri yoo xam ne ay responsabilité euh, yoo xam ne yonente yi fi mas a suñu borom da ko teg seen loos yooyu ay kilifa lañ buñ fi amatul tamit ñi leen wuutu mooy yàlla jiital ci wàllu diine wala ci wàllu àdduna ndaxte al ulama warasatul anbiya ay yonente am waaye ñi yàlla jiital moom duñ fi jóg ba mukk kon yaakaar naa ne ñoom ñëpp euh, loolu rek moo leen yëkkati woon yaakaar naa ne kii euh, ñuy defal bis bii tey tamit yaakaar naa ne ci loolu rek la nekkoon dafa defar boppam ba ñëpp xam ne defaru na waaye yamalewu ko foofu dafa fexe ba tasaare loolu tasaare ci lu mu koy tasaare mooy def lu mel ne jataay yu mel nii wala def lu mel ne ay daara ba lu baax li nekk ci moom mu fexe ba àggale ko ci ñeneeni nit euh, ñu bari ñoo xam ne mën naa am sax mbokk deret boolewu boolewuleen bokku dëkk boolewuleen waaye rek dafa yëg responsabilité euh, ci bu la yàlla defee kilifa euh, responsabilité bi nga xam ne moo tegoo ci saw loos nga xam ne warul yem ci yow kon yaakaar naa kilifa gu ci loxo ba kenn du ko yàq muy gën a yokku rek waaye mu baña a dellu ginnaaw allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh